ñoo gën a riche ñun Rwanda ñoo gën a riche ñun li ñu mën a yokk nag te nga xamante ni bis bu ñu ko defee ça va créer une affaire bu extraordinaire mooy ñu commencé jàpp ne ah on a un président élu démocratiquement dans un moment boo xamante ni Sénégal exposé woon na maintenant nag ñu créer vraiment euh, créer créer créer créer benn en fait ñu qu'on qu'on l'accompagne quoi créer loo xamante ni nit ñi dañ gis ni Sénégal saa ñu demee ba ñu ne bato baa ngi tàng rek mu taxaw commencé am lu ñu jaay suñu biir réew Sénégal may mun a il faut que ñu commencé jaay loo xamante ni dañ koy jaay pour toute l'Afrique sur le plan de l'éducation sur le plan parce que tey suñu université yi war nañoo commencé les ñuy commencé di inspirer suñu histoire pour le continent tey je discutais avec benn directeur école boo xamante ni dafa commencé am dans tout l'Afrique ma ne ko le style de management sénégalais dafa war a commencé di génn c'est-à-dire Sénégal dañu war a am lu bëri loo xam ne dañoo war a ubbeeku di ko jaay mais nag loolu mënuñu ko def bu ñu bu ñu reyante suñu biir. c'est-à-dire ah, il faut que ah, <laughs> ñu gérer ñu gérer yooyu. pour man vraiment euh, li ëpp solo mooy euh, Ousmane seen doom bàjjen la mais Ousmane c'est un grand homme. moom c'est un grand homme te il a xëy na. xeex bi moo moo yàgg trois ans de combat yi mais je suis sûr nekkul wax la xam naa ñii nekku ci sax parce que li ëpp solo li ëpp solo mooy. mais na joxe signal. ah mais itam joxe leen signal itam <laughs> bàyyi leen Amérique Amérique ñëppay joxe signaux. aw euh, moom bu ne aw ma compte yu may rendre bon bu ne politique yi sax garaawul mais aw ma compte yu may rendre journaliste yi man euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo xeex ci ci projet bi c'est restrictif. non xam nga non xam nga ah, xam nga ñun journaliste lañ te nag moom. Euh, warul wax ne amul compte bu mu ñu rendre parce que boobu fu mu méttee. la presse a été a été là et a xam nga xam nga lenn ci lenn ci presse bi. bàyyiluñ ko dara xam nga Ousmane fi ñu ne nii dafa dërkiis ak presse bi parce que amul lu ko presse mën a wax luñ ko waxul woon xam nga loolu mooy loolu mooy danger aussi. ci waaye yorul woon càkk te léegi dafa yor càkk nag. <laughs> léegi nag xam nga moom lu mu xool mooy yaramam na day naan bon xëy na ëmb naa rek la ko presse bi waxul maintenant jar jarul ñu egg foofu man je suis sûr et certain Ousmane ci li mu nekk euh, moo ëpp solo fuuf. ci ci détail vraiment c'est affaire presse bi. Euh, vraiment pour man xam ni. mënoo nekk ci réew mu néew doole di gañee di jéem a wut ay ay optimisation fiscale di def évasion fiscale léegi ñu topp ci entreprise ndaw yi di leen dóor. di loolu pour man euh, c'est un travail boo xam ne war naa mais je pense que euh, Ousmane daal. seen doom bàjjen la nag kii man parce que li may defaree chaque fois mooy dama naan presque ni ñu koy attaqué dañuy fàttali mais mais ñoom Ousmane guddi. <laughs> bayrem bee baaxul. <laughs> non mais mais bon. <laughs> bayrem bi daa ëpp wala bayrem bi baaxul daal. non bon c'est des choses yoo xam ne mun leen bàyyante quoi du ngeen ànd du ngeen tàqalikoo mais. il y il y a un projet pour man pour man pour l'Afrique quoi. le Sénégal y a quelque chose à vendre pour le continent te loolu. la presse mën na ci jouer rôle bu am am am solo maintenant li ci des nag may mun a après. ñu ñu réglé ko ñu réglé ko suñu biir mais merci beaucoup Khadim waxtaan bi neex na trop je reçois beaucoup de messages. <laughs> Euh. Euh, genre waxtaan yi surtout sur l'économie. Euh, ah. dafay dafay manquer à nos à mm-hmm. en tout cas merci pour ce tour d'horizon économique. <laughs> mais may mu ne c'est un plaisir xam nga Sénégal moo tax man la nit ñi dañoo nit ñi dañoo bëgg dem feneen. Mm-hmm. ci beneen Euh, xam nga bu ñu demee tey ba di werante ci wax waxi monnaie di werante ci waxi souveraineté yooyu dafa am solo nit ñi am grand cœur werante ba pare di xool nag à la li gën ñu jël ko parce que kenn ku ci nekk ci ñun lu ñu amal solo mooy li gën ci réew mi li gën ci réew mi nag mënuñu koo def lu dul kenn ku ci nekk nga raxas sa xol politique du ñàkk élection bu ñëwee ñi def politique ñu compétir ñu compétir mais après ñun Sénégal ñu jóge ci dem ci leneen parce que may mun a mënuñoo dëkk dañoo politique deux mille vingt et un ba léegi ñu ngi ñu ngi politique. oui le le dernier mandat de Macky moo yàq li euh, Macky Sall mandat liggéeyul liggéeyul dara ndax. politique il n'a pas eu le temps. maintenant nag mootuñoo nekk ci loolu nañ ciy génn. Ousmane jàppale leen xaw ma Ousmane ban caméra mooy wax ak Ousmane. <laughs> bii la yow nag euh, ta euh, yow tu ils n'ont un excellent médiateur. <laughs> excellent médiateur. non Ousmane je sais que <laughs> xam naa ni vous lui faites rire quoi xam moom xëy na chaque jour mu ñëw sànni leen ñaari xeer <laughs> gars yi jël ko def ko page spéciale Ousmane gis nga lu mu ñu wax Ousmane bu solo lu mu sol nag grand boobu jamaay gi yëre wolof la solo xoolal Ousmane lu mu solo moom mais c'est <laughs> Ousmane dox na ci tapis bu rouge bi ren carpet bi nañ dox ci côté bi <laughs> mais non damay doon Jacques ma mais non mais la presse quand même bon après je me suis dit que tàmm nañ ko ak ak Ousmane bon Ousmane aussi xëy na il il day prêté wu ci jeu bi tamit bon yenn saa mu sànni leen ñaari xeer. ndax saa yi sànni ñaari xeer après y a des pages spéciales mais bon après. Euh, c'est un grand communicant. non Ousmane. <laughs> un grand mais communicant le Sénégal a besoin. Yeah. de Ousmane a besoin de la presse et je pense que défaite la ci ñun ñëpp ñu ne am na benn presse bu tam donte pour man day dal ci kaw régime bi on dëkk dafa soxla dafa soxla ñi ànd ak régime ñi ko ñi ko contre et puis. loolu mooy dundal démocratie te je sais ko Ousmane du def mooy que mooy que c'est.